FC Barcelone kii di Memphis Depay bi nga xam ne waa Barça dañ ko wax ne mu xooli beneen club ndax comptetuñ ci moom gannaaw waa ñëw Lewandowski ak yeneen i attaquant kii di Memphis Depay nag euh, Xavi xamal na ko ne boole boole ko si plan pour saison bi ñëw jamono nag équipe yu bëri nañu pour recruter ko ñii di waa Olympique de Marseille bokk nañ si équipe yu ko soxla jamono nag waa Marseille ñu ngi bàyyi xel Memphis Memphis Depay ak situation FC Euh, contrat bu seen joueur bi di euh, Peter Federico nekk si euh, Castilla bi muy équipe bu ndaw Real bi prolongé nañ contrat ba 2025 kon démb si mardi bi la signé contrat am clause libératoire am léegi 50 millions d'euros la ba léegi ak équipe bi di Real Madrid attaquant Chelsea bi di Timo Werner dañ ko proposé foofu sa Real Madrid ngir mu nekk ngir muy nekk remplaçant Karim Benzema jamono nag waa Real attaquant la war buy mën di remplacer Karim Benzema kon nag kii di Timo Werner dañ ko proposé si équipe bi di Real suñ sukkandikoo si information yu Mundo Deportivo joxe. ñu jàll Angleterre kii di Cristiano Ronaldo waa Manchester United doon nañu amal réunion ak moom ak seen entraîneur bi di Erik di Erik ten Hag moom moo sàkkoon pour waxtaan ak Cristiano Ronaldo ngir jéem koo convaincre. ngir mu toog foofu sa Manchester waaye waxtaan boobu nag jurul dara ndax kii di Cristiano Ronaldo woon ba léegi neen dafa bëgg a jóge ci équipe bi di Atlético de Madrid ñoom nag ñoo intéressé woon si kii di Cristiano Ronaldo waaye président Atlético bi ñoom moom nag euh, def na benn sorte di si xam ne ne information yi xamul fu mu jógee waaye Atlético waxtaanul ak kii di Cristiano Ronaldo supporter Atlético yi nag ñoom tel nañu jël seen matuwaay si kii di Cristiano Ronaldo si match amical bu Atlético doon na bind nañ si benn banderole boo xam ne dañ siy wane ne carrément bëgguñu kii di Cristiano Ronaldo ñëw ba seen équipe. Chelsea gannaaw bi leen Jules Koundé rëccee di waaj a signé ak Barcelone ñu ngi intéressé wu si beneen défenseur muy euh, défenseur u Leicester bi di Wesley Fofana waaye kii di Wesley Fofana bu bu mu prolongé contrat am ak Leicester yàggul. te jamono yi nag clause libératoire dafa bëri kon na mooy euh, gën a cher Chelsea nag da koo beneen défenseur bu Chelsea intéressé wu muy Presnel la Kimpembe kii di Kimpembe Chelsea ñu ngi doon waxtaan ak moom ngir jéem ko signé waaye Kimpembe nag lu mu bëgg may continuer di jouer ak Paris Saint-Germain ndax bëgg faa jóge léegi officiel na Kevin Mbadou jóge na Wolfsburg signé ak club bi di Fulham transfert mu ngi dikkee Fulham 5,5 millions d'euros signé na contrat ñetti at ak beneen at boo xam ne option lay doon officiel léegi beneen défenseur gannaaw ba bu Kalidou Koulibaly demee signé nañu kii di nekk doomu Corée transfert mu ngi leen dikkee 19,5 millions d'euros kii di Kim Min-jae signé na ba 2025 ak ñaari at yoo xam ne option lay doon clause libératoire am millions d'euros la. léegi officiel na ñi di Bordeaux dañuy mujjee des ay Ligue 2. saison bi passé nag Ligue 1 lañ doon joué muy première division championnat France waaye nag dañoo bokkoon ci équipe yu mujjee ci classement moo tax ñu wàccee leen Ligue 2 waaye après wàcc boobu nag dañ leen si yan euh, national la ndax euh, dañoo am ay jafe-jafe koppar yoo xam ne mënul woon mënul woon tax ñu des si euh, Ligue 2 bi kon gannaaw bu ñu leen wàccee waa fédération française bu football doon nañ ci amalaat ay enquête ngir xool ndax Ligue ñii di waa Bordeaux dinañ am koppar yu war ngir des si Ligue 2 bi waaye gannaaw nag mi nga xam ne jaay nañu seen jour bi di Sékou Mara am fukki at ak juróom-ñeent nangoo dem signé foofu sa 160 tonnes 160 tonnes 160 tonnes mu ngi ko jëndee 11 millions d'euros kon loolu donc moo tax mu sauvé Bordeaux. si wàcc bu mu naroon a wàcc kon ñii di waa Bordeaux dañuy mujjee des sa Ligue 2 gannaaw bi nga xam ne koppar yooyu dugg na si équipe bi ba mun leen na tax ñu mun a jouer si euh, deuxième division championnat France di euh, Ligue 2. kon léegi kii di Sékou Mara signé na ak 500 tonnes transfert mu ngi dikkee 500 tonnes 11 millions d'euros. Kasper Schmeichel kon waxtaan na ak euh, ñii di waa Nice ba jubóo gannaaw nag Nice ba mu bëggee woon a signé. Euh, yam na Sommer ba loolu mu jéewal sotti kon na doon nañu jéem waxtaan ak beneen gardien muy gardien Leicester bi di Kasper Schmeichel ba accord mu jéem am seen diggante. kon waxtaan ba déggoo mu jéem am seen diggante kii di Kasper euh, ñii di waa Nice nag jamono yi Leicester la ñu war a waxtaanal. léegi nag euh, xam nañu ñaari équipe yu finaalu ci Euro féminine bu doon am ren jii ñii di jigéen ñu Angleterre yi ñoo gañe woon Suède. barki demb loolu leen a ñeent bal dara si benn demi final bi beneen demi final bi démb waa Allemagne ñoo mujjee dóor waa France ñaari bal si benn kon final mi ngi war a dox si diggante Angleterre ak Allemagne muy final euh, euro féminine 2022 match bi dimanche lay daw su 16h jotee ñu jeexale ak kii di. Euh, Euh, Rasoul Ndiaye nekk foofu sa Chocho jamono yi nag euh, Toulouse moo siy waxtaan ak Chocho ngir mun ngir jéem koo signé kon euh, waxtaan ba déggoo ma jéem am si diggante ñaari club yi di Toulouse ak Chocho pour transfert Rasoul Ndiaye foofu sa Chocho foofu sa Toulouse.